أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم السلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla doole xéewal te musal ko ñoo ngi àndoon ak yéen ci qisasul ambiya toll ci histoire Moussa alayhi salaam te ñu ngi ci Moussa yastaiddu liqaa firaun Moussa yastaiddu li liqaa'i firaun yonent boobu tudd Moussa moo ngi waaj di préparé daja jeeg buur bu kàccoor boobu tudd Firawn mu ne léegi nag wal aana faqad tarakna zawja Moussa fi xaymatiha instant bi nu tollu Moussa daan nay bàyyi soxnaam ca xayma ga soxna saa ngi toog ci biir tànt bi ci biir xayma gi di xaar borom këram ñibbisi xamul ban taala fa Moussa war a paase digganteem ak Firawun wala xamul ban temps la Moussa war a paase diggante bi muy diisoog boroomam wala nadri maza daara bi zihni zawjati kenn nit ñun xamul ay xalaat wala ay image yàlla moo nekk ci kanamu soxnaam li ko leer daal moom mooy soxna si yàlla woona borom këram dem na wuy ji waaye yàlla tabaraka wa taala yeew na xolu borom kër soxna si ba soxna si mën a muñ mën a supporter wéetaay boobu mu wéet ci xayma gi ci tànt boobu ci lëndëm boobu Moussa dem waxe ji ak boroomam amul lenn lu ko tiital ci àll boobu mu nekk amu lenn lu ko gaar ndax kat mi ngi aj xolam ci allahu tabaraka wa taala noonu la yàlla tànnee Moussa alayhi salaam daal di koy yebal ci waa jooju tudd firawna yàlla daal di koy jox kiimtaan ñaari kiimtaan la ko yàlla jox mooy al asa wal yadu yad wi ak loxo bi yàlla xamal ko ne ko demal ci firawna ndax dafa beew beewam kat weesuwul mu ne ana rabbukumul aala maa yàlla bu koy reewande jàpp ko ba mu ne maa alimtu lakum min ilahin xayri xamaluma leen benn yàlla bu ma dul man ku ma dégg fi mu ne yàlla am na dama koy rey ndax man maay yàlla ju mag ci d'accord naa yàlla am na waaye man maay ku ngande ki gars yi nee nañ keroog bi Firawna waxee maay yàlla Iblis dafa dafa dafa yuuxu zibile daan ne man Iblis li may bon bon nag fii nag eggaguma fi ndax man xam naa ne moom yàlla am na damaa kàccoore rek waaye ma ni man maa yàlla man nag egg gu ma woon foofu moo tax ndeke wootewu yàlla du du lu bees tey du lu bees ci Sénégal ndax kat jàng ngeen alquran yàlla mu ne Firawna waxoon na ana rabbukumul aala kon du lu bees ba tey ay nit di ko wax naan maay yàllaat diw yàlla laat kaay leen ñu wan leen yàllaat woote yooyu nga xam ne tey nu mu bëree ci jamono ku jóg rek daan ne moom day wane yàlla wala moom yàlla la wala di sos ay daayira yuy wane yàlla nga gis xale yi jigéen léegi góor yi di ci njëkkante koo gis mu ngi yor ngandu maami kurus ne day gis yàlla yàlla yónni na Moussa min ajli an yaduwahu bi rifqin waliin waaye gis ngeen yàlla tabaraka wa taala ci mbaaxam ak yërmandeem ak maanduteem xoolal firawna ni mu kaccoore ni mu bone yàlla bi yónni ci moom fir Moussa lan la yàlla waroon wax Moussa boo demee gëdd ko arsale ko poñe ko yuuxu ko ndax saay-saay la waaye yàlla mu ne Moussa soo demee na nga ko wax wax ju nooy fa quulaa lahu qawlan layyinan allahu akbar woo leen ko ci ndànk bi rifqin waliin fa ya'muruhu an yatruka an yutrakahu yaxruju bani israila min misra li yadxulu al ard al muqaddas firaaran min barshi firawna wa isaihi yàlla ne Moussa boo demee nga ni firawna na libéré peuple banu Israël na leen libéré na leen bàyyi na dagg buum yi mu takk ci seen tànk yi def leen ay jaam di rey góor ñi di bàyyi jigéen ñi na la bàyyi yow Moussa nga ànd ak peuple bi ngeen dem ci suuf su sell soosu di baytul maqdis ndax ñu mën a mucc ci lor yi leen firawna di lor mbokk yi wa huna axassa muusa alayhi salaam bi xawfin shadid li annahu qatala rajulun min aqbad misra fii la muusa alayhi salaam daa di yëg tiitaange tiitaange bu rëy la yëg ban tiitaange parce que yëgoon na ne balaa muy génn Égypte lan la defoon daa reyoon nit tey nag kër googu mu reyoon nit wala ñooñu doon ko seet dëkk boobu mu reyoon nit yàlla bokk faa yebal lan lay xalaat su demee dañ koy jàpp rey ko mu daal di yëg tiitaange gu rëy ndax rayoon na ko rayoon na fa benn copt fa yaxsa an yaqtulu mu ragal ne moom bu demee dañ koy rey fa saala allahu aza wa jal an yursila maahu axaahu haarun li yakuna awnan lahu ala dalik mu ne yàlla maadaama ñoom ñu ngi may wër pour rey ma yow yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ak sama frère Haarun ndax mu dimbali ma wa huna yatalaqa Musa al istijaba wa tatmain fii la Musa amee ak nangu Musa Musa ñaan yàlla daal di nangu ñaanam Musa daal di am dal قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون الله أكبر yàlla mu ne ko dinaa dëgërale sawet ci sa frère naa yónni gi ma la yónni dinaa la ci utal ku lay jàppale waaye du kenn lu dul sarak ju góor ji dinaa leen defal sultaan kiiraay preuve bu ne kenn banu Israël li ñuy kàccoor kàccoor firaaw égyptiens yi li ñuy bon bon bon li firaaw na di kàccoor fala yasiluuna ilaykuma du ñu egsi ci yéen ñaar seen coow yi bëri rek waaye yéen ñaar moom dara lañ leen dul mënal te sax maa ngi lay yëgal yow Moussa antuma wa man ittabakuma alxaalibuun yéen ñaar ak ñi leen topp yéen ay gañe gis nga confiance bu yàlla jox yonent bi moo ngi dem di dajajee buur boo xam ne tey jii ci jamono bu doon buñ ko doon misaal kan lañ koy jox Barack Obama benn waay ci peuple bu ñu doyadil war a dem tey dajajeeg Barack Obama lu ñuy xalaat ci moom su demee day tiit su demee lu ko day ragal koor su demee xelam du dal waaye xoolal yàlla da ko da utal assurance yàlla dafa dalal xelam yàlla dëgëral ko ba pare ne ko demal maa ngi lay assuré ne ñoom peuple boobu li ñuy bëri bëri fala yasiluuna ilaykuma du ñu yegsi ci yéen maanaam duñu leen laal ba pare maa ngi lay yëgal antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun yéen ñaar ak ñi leen topp yéen ay gañe kon bu leen tiit bal yàlla dalal xelu Moussa alayhi salaam ba Moussa am sécurité yàlla ne leen maa ngi ànd ak yéen sax nag asma'u wa ara maa ngi dégg di gis maa ngi ànd ak yéen lan ngeen xam waa yoo xam ne yàlla ngi ànd ak moom ngeen xam ci moom ah ku yàlla àndal lu ngeen yaakaar ci moom day gañe rek waaye Moussa balaa muy dem dafa proposé ay doléance yu mu def teg ci kanamu borom bi tabaraka wa taala mooy lan waxlul iq uqdatan min lisaani yafqahu qawli yàlla balaa may dem kat sama làmmiñ bi wax ji du leer damaa bëgg nga dindi ko lan moo tax Moussa waxam daawul leer boroom xam-xam yi ne Moussa dafa dafa non non benn baat rek laa soxla déedéet benn baat rek laa soxla dafa dafa dotomoon lan mooy dotom mooy làmmiñ bi moo takk suy wax du leer bi ko yàlla yónnee nag mu def ko yeneen ne ko demal ci Firawna mu ne ko yàlla sama làmmiñ bi leerul damaa bëgg làmmiñ bi mu leer nga leeral ko balaa may dem na làmmiñ bi leer loolu mooy benn yàlla ne ko nangul naa la ko mu ne ko nga yónni sama rakk mu nekk yonent di ma jàppale yàlla mu ne ko nangul naa la ko ndeysaan yàlla ne ko izhaba ila Firawna innahu taxa dem leen ci Firawna ndax dafa bew fa réew ndax reewane weesuul mu ne man maa yàlla kon ku ne man maa yàlla anta taaxi yow da ngaa bew gis ngeen firawna bi ne maa yàlla lu ko yàlla wax innahu taxa dafa bew dafa reew kon ku ne yaay yàlla da ngaa reew ku ne diw yàlla la da ngaa reew qaala rabbi ishrah li sadri yàlla yàlla na nga yaatal sama dënn wa yassir li amri nga yombal sama mbir waxlul uqdatan min lisaani nga dindi fas fas yi fase ci sama làmmiñ yafqahu qawli ba ñoom bu ma waxee ñu dégg ndeysaan borom xam-xam yi nee nañ Moussa dafa mës a xëcc Firawna Firawna dafa nekk ci mbooloo mi Moussa xëcc sikkim bi mu daal di mu daal di ngelawal bi loolu amee ci comme ci mbooloo mi la nekkoon murus mu ne day rey xale bi jabar ji ne ko kii xale bu ndaw la rek kii liir la nga koy rey kii dafa tay li muy def mu ne ko moo ko tay mu ne ko kii amul xel mu ne ko am na xel mu daal di yabal moom Firawna mu ne indi leen ñaari palaat benn palaat bi ñu def ci tàndarma beneen palaat bi ñu def ci xalu safara xal bu boy biñ ñëwee ñu teg léegi firawna mu ne Moussa jëlal ñaar yi benn Moussa daal di jubal ci tàndarma bi bëgg a jël borom xam-xam yi nee nañ yàlla dafa yónni jibril mu ñëw jàpp ci loxo bi daal di koy puus ci safara si mu daal di teg safara si ci làmmiñ bi safara si lakk làmmiñ bi loolu moo indi woon làmmiñ bi fasu xaw ma taxoon làmmiñ bi daal di lakk léegi nag ñaan na yàlla tabaraka wa taala na ko yàlla dindil loolu yàlla ne ko nangul naa la ñaar yépp léegi lan moo xew yàlla mu ne ko demal ci firawna nag léegi mu ne yàlla wutal ma ministre waj'al li waziran min ahli haaruna axi usdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihuka kasiran wa nadkuruka kasira innaka kunta bina basira qaala qad utita su'laka ya Musa yàlla jox ma sama frère bi mu dimbali ma mu nekk sama wet nekk sama ministre nang ma ko dëgërale na na nekk sama wet di ma dëgëral su ma waxee mu ne dëgg la ba ma ko yónnee mu jàppale ma su gaa yi di weddi mu taxaw sama wet na ma jàppale ci mbir mi ndax ma ñu mun laa jaamu loolu moo tax ñu ne jaamu yàlla nga def ko ci mbooloo da lay sawarloo maanaam yow mu waroon nekk sa kër di julli boo demee ci jàkka ji daf lay gën a sawarloo nga fekk fa say mbokki julli ngeen ànd di jaamu gis nga Moussa lan la wax fi yàlla kay nu sabbihuka kasiran ngir ñu mën laa sàbbaal lu bari mi ngi mel ne tey boo doon naafi la naafila bi kiy jiite day jàng hisib nga ñëw ànd ak mbooloo mi ak yow yow kese boo ko doon def sa kër ban ban ban mooy gën a ban ban ma ngay ban ngay yëg cawarte bu doon sa kër da ngay jàng ñaari boo moytu lu ñaari fëy rek daal ne ah taxawaay bi dafa yàgg de xaaral maru koo waay mais bu doon ci jàkk ji la nag da ngay muñ rek taxaw di muñ sa xel naan la ah mbooloo mi kenn rukoowul nga naan da ngay rukoo ñëpp a ngi nii taxaw xanaa gisoo xale yu ndaw yee xoola jigéen ñi sa ginnaaw yow doo rus sax cim cim yow taxawal waa yow nga nga taxaw moo tax jaamu yàlla mbooloo day sawarloo nit moo tax jaamu yàlla yëpp mbooloo la yàlla waxul kenn na def dara moom kenn booy julli yaa ngi nit ñi yéene booy woor booy aji màkk booy joxe aja lépp looy def ci jaamu yàlla yaa ngi nit ñi yéene ko yaa ngi di ko defandoo amul jaamu yàlla bu la yàlla sant yow kese na dong na kott na la def ko nga xam ne yow dong yaay wéet benn jaamu yàlla dong moom ngay def benn waxtu boo xamante ne yow kenn yaa koy def ci àdduna bi benn jaamu yàlla kese la xam ngeen jaamu yàlla boobu ban la benn jaamu yàlla boo xam ne waxtu wi nga koy def yow kenn yaa koy def àdduna bi yëpp ñu ngi taxaw di la xaar yow rek benn kese la ci at jaamu yàlla yi tu vois déedéet kadoo ngi taxaw de déedéet sangu booy sangu ñaaraan juddu si di sangu benn jaamu yàlla de kado ngi nii de kado déedéet booy salal gaa yaa ngi salal booy jiite gaa yaa ngi jiite bu imaam bi taxawee bi yeneen imaam yaa ngi ci yeneen jàng yi booy jiite yeneen gaa yaa ngi jiite nga war a jiite di julli ñaari la julli guddi booy julli guddi gaa yaa ngi julli benn jaamu yàlla gasal ma bàyyi ko noonu ba bii di ñëwaat ah ma bàyyi ko ba samedi wala ma tontu ko mooy fóon xajaratul aswad fóon xajaratul aswad benn place boobu nag ngay nekk yow kenn di ko fóon adduna yëpp taxaw parce que benn boobu rek la maman bi nga koy def amul keneen ku koy def yow rek yaa koy def fóon xajaratul aswad moom kese mooy benn jaamu yàlla boo xam ne maman bi nga koy def kenn du ko def yow rek yaa koy def amul beneen beneen booy def rek nit ñaa ngi koy def mu ngoog yow yàlla ndax ñu mën a dégg sama wax qiila innahu alayhi salaam xoon nañ loolu yàlla ne ko xat uutita suulaka yaa Moussa Moussa li nga ñaan may naa la ko allahu akbar li nga demandé maanaam li nga bind ak say doléance nangul naa la lépp waaw lépp laa la nangul bàyyiwuma ci benn qad utita su'laka ya Musa li ma ñaan may naa la ko allahu akbar mu ne li nga ñaan may naa la ko yow Moussa léegi lan moo des maadaama li nga ñaan jox naa la ko jëla say bagage nag demal ci firawna baadama jaal amru min allahi aza wa jal li Moussa alayhi salaam an yazhaba huwa wa axuhu haaruna ila firawna min ajli da'watihi wa min ajli inqaazi bani israil min batshi firawna wa ta'zibihi axaza Moussa tariqahu ila ardi misra li yuwaajiha batsha batsha axtar borom xam-xam yi nee nañ keroog ba Moussa déggee ndigalal yàlla ñu ne ko demal ci firawna yaag sa frère Haarun ngir ngeen woote ji ci yoonu yàlla ngir ngeen libéré ji peuple banu Israil ci mbugal yi leen di firawna di mbugal ak duma yi mu leen di duma keroog la Moussa jël yoon wi nag jëm Égypte allahu akbar jëm na Égypte nag mooy Égypte bi ngeen di dégg tey moom la dem na ngir jàkkaarloo jeeg kàccoor boobu tudd firawn wa huwa ya'lamu anna firawna lam yu'ti bani israil bi ghayri sira'in marir te ba muy dem leer na ko ne firawna mii banu israil toppuñu ko nii rek mais lan moo tax ñu topp ko dañ ko ragal daf leen a mbugal daf leen a torturer ay at ay siècle Firawna di leen toroxal tey nag jot na yàlla yónni kenn ñii ñuy neewal doole ñu libéré leen moo tax nit ñi dañuy yàkkamte rek waaye nappaate koo gis bisa ngi ñëw borom taxaw sa jabar ji ngay napp sax bisa ngi ñëw mu taxaw sa doom ji ngay napp bisa ngi ñëw nga dóor ko mu ne la paa attention de nga naan ko waaye dara beneen yoonee boo ñëwee pour dóor day téye say loxo këj téye ñaar yëpp du la dóor demee ngay xool nga bëgg a rëcc doo rëcc mu téye la nga naan yàq yow da ngay téye samay loxo mu téye la ne la paa ay li ngay def buñ la téye nag rëccoo ñu téye la cinq minutes nga kërti kërti rëccoo bu yow nga def ndànk fal ndànk nag fal ndànk fal ndànk de xamal ki ngay waxal nag léegi nag waaye daf ndànk deel ndaxante deel waaraate waaye boo amee doom ba mu nekk ponkal nag tegal yet wi lu nekk dafa am fu mu yem lu nekk dafa am fu mu yem mbokk yi firaaw na nag bisam tey la yem yàlla yónni na ab yonentam mu war a ñëw nag léegi libéré peuple bi waaw nekkul ak moom de nekkul ak moom mu ngi kër ga après moo ñëw informé nekkul ak moom waaw moo ngi ñëw nii ci dars bi mu ne Moussa ndeysaan jubal na yoonam nag léegi jëm Égypte wax gis nga mu ne wa axuhu falam yaarifhu fi baadi al amr summa arafu bi mu ñëw ba dugg seen kër mu nuyoo mu ne wa daxala ala ummihi wa axihi falam yaarifaahu bi mu ñëw mu dugg ci kër gi ñoom ñaar kenn xamu ko parce que léegi moom ba mu fi jógee nan la woon waxambaane la woon mu daw tey bi mu ñëw mi ngi sikkim bu gudd kawar gaa ngi fees dell ci bopp bi mi ngi njool mi ngi nekk ngand mu ngi nekk ponkal ba pare mu ngi nekk yonent allahu akbar mu ngi taaru leeru leeru yonent gi mu ngi mu ngi mu ngi jal jali ci ci ci loxo ci kanam gi moo tax yaay ji bi mu ko gisee xàmmeewu ko frère am bi bi mu ko gisee xàmmeewuñu ko summa qaala Musa li Haarun alayhi salaam inna rabbi qad amarani an azhaba ila firawna li adduhu ila allah mu ne frère am yàllaa ma yónni maag yow nañ dem ci firawna ñu woowi ko ñu woo ko na bàyyi li mu nekk ñëw topp ci yoonu yàlla lu diis la nag nga war a gis nga tey bu ñu ñëwoon benn waaye demal nga waari Macky Sall day am problème mu ngi ci oto bi di dem mu ngi ci oto bi di dem waaye lan lay xalaat su ma demee lan laa koy bindi ko waaye fan lay commencé ah moom lan laa koy njëkk a wax fan lay commencé ndax damay ñëw ne ko ne ko ragalal yàlla ah déedéet déet xaaral ah xanaa kay damay ñëw voilà gis nga waaw léegi nag boo bàyyee kilifa googu nag nga ñëw ci yeneen kilifa diine yi nag ñu ne da ngay dem nga waar leen ñooñu sax kenn ñemewu ko moo tax ñu am problème Sénégal suñu kilifa diine yi kenn ñemewul fàttali leen yàlla jamais kenn ñemewu ko kenn amul xalaatam kilifa diine boo xam ne kenn ñemewu ko ragalal yàlla wala kenn ñemewu koo waar allah wala fu mu nekk kenn du wax ñëpp a war a noppi moom rek a war a wax te moom bu waxee ba pare kenn du laaj kenn du tontu kenn du ci teg baat ñëpp ay jóg ñibbi kooku war na wax jàmm de la te loolu lañu yàlla nattoo fii waaw kii dafa xamati kilifa gi toog mu ne day wax bal sax nit ñi dangay dégg ne kilifa yi ñoo toog ñun dootuñu yëkkati kàddu su kilifa yi toogee kenn waratul wax dégg nga yooyu lañ ñu gëmloo fii su kilifa yi waxtaan waxee ba pare kenn warul laaj même bu fekkoon ne kilifa gi li mu wax du dëgg it dañ naan noppi leen rek te dem ndax kilifaa ko wax waaw benn kilifa toogoon na ci benn jàkk mu ne ku gis fu yonent wax ne dañoo war a julli xabdu nii na ko wax rek benn waay jóg daan ne ko fii sahih buxaari qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dur hadis bi ne ko fii muwatta maliki qaala rasul dur hadis bi ne ko fii sahih muslim dur hadis bi ne ko fii buluuxul maraam dóor xadis bi rek ñu ne dóor nañ ko kii dafa xamati waa ji dañ koo jaaral ci fenêtre bi tuuti gars yi rey ko waa ji dañ koo mujj a rawale tuuti ñu rey ko te ñoom ñoo laaj te waa ji tontu ñu ne dóor leen ko gis nga loolu moo am Sénégal nag diina moom waaw boo fekkee benn waay juum ci kenn du wax waaw kenn du wax même bu juumee kenn du wax na ñëpp noppi loolu musiba la de mbokk yi musiba la de musiba la de ci dem damaa ñëw koñ ba dama yaay mu ne am na ku gaañu de dama nga jaale yi waaye de juróomi jabar la am ma ne ko demuma mu ne ma juróomi ah man de dem naa ci néeg ba yitte ñi juróomi jigéen laa gis ma ne ko kon xaaral ba mu leer ma doog a dem juróomi jabar moom du ma gis ko am mukk ma koy jaale ma ne ko boo ci amee lu la leer nga wax ma ko mu ne ma daal juróomi jigéen laa fekk yitte ñi est-ce que julli dina am juróomi jabar mu ne ko yàllaa ma yónni na ànd ak yow Haarun ñu woowi ji ñu woowi ji firaaw na ci yoonu yàlla wa amaraka rabbi an nataawana mu ne ko yàllaa digal ne nanu dimbalante man ak yow an tuaawina nii nga dimbali ma yàllaa joxe ndigal nag ma dimbali ñu dem joxe ji mission bi fa qaala haarun sam'an wa taan li amri rabbi gis nga moo tax fekkewu ko woon mu ne ko dégg naa topp naa sama ndigal borom aca jiitul ma topp la fa zaaba Musa wa haarun alayhi salaam ila firawn Musa daal di jubal mook firawna mu ne wa kaana laylan guddi la woon nag wala de munoon naa wax ne xaaru xaar bu set gis nga yonent yi waaye yàlla du leen jox ndigal ñu naan ba ba kii guddi la de bi mu yegg si guddi la mu dem nuyu ji yaayam jox mu Haaruna information bi tey bu doon fi kenn ci ñu lu muy wax comme guddi laa yegg si léegi sama yaay gëj naa koo gis sama frère yi gëj naa leen gis egg si naa sunu kër naa jël sama temps nañ ma indi reer tànqal leen ma ndox ma sangu après ah ñu commencé rayal la xaar nga commencé lakk ci guddi gi nga ni ba bët set ay gis nga yonent yi ñemewuñ loolu bi mu yegsee teg bagaasam nuyoog waa kër gi xamante koog ñoom ñu xam ko mu wax xaar mu wax Haaruna li mu indi Haaruna ne ko nangu naa ñu daal di jël seeni bagage ñoom ñaar anama jëm nañ kër Firawna guddi la woon Moussa daal di yegsi daal di fëgg bunt bi fa daraba Moussa baabal qasri bi asaahu allahu akbar mu ñëw yag boobu mu yor mu ñëw ci buntu pale bi ne ko këng këng këng këng fa samia Firawna fa xadiba firaaw na dégg kën kën ngir mer mu ni wow buntu pale bu ñuy fëgg mi ana gàtt yi rek mu yuux mu ne lan moo xew kan moo def lii ñu ne ko ah buntu bi de ñaari gaay ñoo fa taxaw est ce que duñu ay dof huna rajulaani majnunaani ñaar ñu dof lañ de yaqula innahu rasulullah kenn ki nee na moom yonent la yàlla ko yónni fa qaala alayya bihi indi leen ko gis nga réew na ñëw fa daxala alayhi Moussa Moussa daal di dugg wa Haarun ñoom ñaar ñi daal di dugg rek bàyyiwuñ ko mu wax fa qaala dañoo dugg rek ne ko inna rasula rabbik farsil maana bani israil wala tuazibhum qad jinaaka bi ayatin min rabbik wa salaamun ala man ittabaa alhuda point musul dégg wax ju mel ni ne allahu akbar li moom firawna dund na ba fii mu yem musul dégg lu mel nii inna ñun ñaar ñii taxaw sa kanam tey mu ne ah rasula rabbika say ndawi boroom lañ yàllaa ñu tànn yónni ñi ci yow tey lu yàlla wax mu ne ko farsil maana bani israil libéral peuple bi ñii nga doon bugal jeex na nag tey da nga bàyyi jàmbur yi acca libéré leen wala tuazibum bu leen bugalit soo buggee weddi ne ñun ñaar ay yonent lañ qad ji inaaka bi ayati min rabbik indil nañ la preuve bu weex bu ne weng leer nañ ñi ne yonent yàllaa nu yónni waaw da lay wax lu leer nag te nag ñu ngi lay yëgal ah wa salaamun ala man ittaba al huda yàlla na jàmm nekk ci ku dégg dëgg rek topp dëgg ndeysaan wa salaamun ala man ittaba al huda yàlla na yàlla def yàlla na jàmm nekk ci ku dégg dëgg topp dëgg ndeysaan neex bëriwul nag man a yonent bi daal ma ne allahumma adina al haqa haqqan warzuqna al tibaay léeg-léeg nga gis ndeysaan ku gis dëgg daal ne xam nga xam naa ne mbir mi mbir mi dëgg la de waaye nag man ngay xam naa ne jigéen dafa war a muuru waaye nag man ngay xam naa ne waaye nag man ngay xam naa ne wax dëgg yàlla lii baaxul waaye nag gis nga yàllaa ko baaxewul moo tax gis dëgg topp ci yombut de waaye yàlla moo lay dimbali moo tax firaaw na gis nga li mu jëkk a def mooy ñaanal ko ne ko yàlla na jàmm nekk ci ku gis dëgg topp dëgg ah lan mooy indi nañ la kéemtaan bi mu'jiza min rabbik inni qad uhiya ilayna anna al azaba ala man kazzaba wa tawalla maa ngi lay yëgal ne yow firawna ah yàlla wax na ma de gis nga lii ñu indi fii ku ko bañ a dégg ku ko bañ a topp yàlla da lay mbugal ëllëg yowmal qiyaamati yow nga dégg liñ la wax dee boo nag mu leer ci yow comme Firawna mosul gis lii nag comme Firawna mosul dégg lii mosu koo gis lan mooy mbiram lan mooy réaction am te lii ci kanamam la te peuple palais bi gaa yaa ngi toog garde yaa ngi toog ministre yaa ngi toog jabar jaa ngi fi xam ngeen palais rek xumb xumb baa ngi fi lépp a ngi fi sàngara saa ngi nii musique baa ngi nii borom yaramu neen yaa ngi nii dëpp ngi nii ñaar ñii rek ñoo fi rax te ñaar ñi ñoo fi indi kàddu goo xam ne kenn mësu ko fee dugal ba pare tekki nag ah lii nu indi kat sunu borom yëgal na nu ne képp ku ko lànk dana fudd sa ndigg bu yeboo ngay kilifa bu yeboo ngay ku mu mën a doon lii nu indi fii wax ko ku lànk ban koo dégg ëllëg yàlla dana la dana la duma waaye yàlla wax na ne képp ku ko dégg daal di tuub dellu yàlla dina defal jàmm waaye xam nga ne boo bu nit ñi dañuy wax ne buur bu nar a texe yàlla da koy may ay bëkk néeg yu baax feyaan na xam ngeen lu tax mu alko dafa amoon bëkk néeg bu bon bu tudd Haamaan Haamaan moo tax Firawna même bu bëggoon tourner Haamaan mooy bañ mu ne lii mu ngi amee woon amaama Firawna wajhan li wajh face à face amul yónni keneen déedéet ñoom ñaar la bada Moussa yu xaatibu qalba firawna Moussa commencé di dugal daawa bi ci xolu firawna bi kalimaati raqiq ci ay wax yu nooy la alla qalbuhu alyalin amaana xol bi nooy wa an yumina bi rabbil alamin amaana mu gëm borom bindeefi bada Moussa yu haddisu ani rahmatillah Moussa commencé gis nga sooy sooy daawa doo ñëw rek yéen ñi ñëpp safara ngeen jëm yéen ñëpp jahannama ñu bon ngeen yéen ah déedéet loolu du yëg ma de gis nga Moussa bi mu ñëwee lu mu njëkk a def commencé wax ak Firawna ci wax yu nooy allahu akbar loolu yooyu la loolu loolu la gars yi naan loolu la ulamaaw tabliix di wax ak tarxiib tarxiib dafa am tarxiib am tarxiib mooy xemmem loo nit waaw yërmande yàlla dafa yaatu def ngay bàkkaar sax wax nga ana rabbukumul aala mais gis nga loolu yëpp du problème ci kanamu yàlla booy tuub yàlla di la baal waaw doon nga fecc kole dara doon nga baali doon nga def nangam doon nga déglu musique doon nga jëngal doon nga check down doon nga doon nga waaye gis nga loolu lépp boo paree pour tuub dellu ci yàlla wallahi yàlla dalay baal est-ce que pare nga yëgal ne yàlla lim ah loolu la ko Moussa commencé ci Firawna def nga nangam def nga nangam waaye loolu yëpp yërmande yàlla moo ko gën a yaatu wa annahu laa yuridu minhu an yunaazia an mulkihi gis nga Moussa wax na ba pare waaye tuddul nguur gi ndax buur yi souvent boo ñëwee di wax dara rek seen trône rek gis nga Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck lan boole sama siège bi may toog lay xool daal koy xool ñu indi Macky ñu ne moom tamit xool na siège bi gis nga ba kañ maanaa buur fi muy toog buggul ku koy xool lan laa jublu ci buggul ku koy xool maanaa buggul kuy wax ne kii bu wàccee maa fi toog kon day wax ne yow yaa ngi fexe lu may wàcce danaa war a wax rek ah kii da ñaanal leen ko yàlla mu gudd fa waaw ba mu jeexal mandaam yooyu rek nga war a waaye dina mënatul dafa war a toog mënatoo wàccal te xam nga maa topp ci yow boo wàccee may toog koo ko wax buy dund boo moytul doo toog fu mu toogoon yàlla def na Moussa wax na ba pare tuddul nguuru Firawna waaye lii mooy boole tey boroom xam-xam yi ci àddina bi lii moo leen boole ak buur yi boroom xam-xam yi saa yu ñu waxee buur yi rek buur yi dañ naan sama sama siège bi la bëgg a toog wala dafa bëgg a changer dëkk bi moo tax dañuy rey rek partout dans le monde foo dem dañuy rey borom xam-xam yi di leen tëj di leen duma moo tax l'islam bi tumarank parce que borom xam-xam yi ñoo fi toogal yàlla waaye foo dem rawatina dëkku arab yi dañuy rey rek bu ñu reyul ñu tëj laa yoo xamante ne ci kaso bi ngay dee waaw foo dem noonu la instant yi Égypte dafa fees tel kaso yi ci ay borom xam-xam kaso yëpp a fees Arabie Saoudite waxi noppi Syrie waxi noppi dana leen yàlla dimbali mbokk jullit yi wa ma zalika kaana firawna yasmau ila kalaami Muusa gis nga mu firawna fi mu toog yàlla def na mu ngi dégg waxu Muusa Muusa ngi koy daawa mais mun a tekk di déglu gis nga bu fa Haamaan nekkul woon kon Firawna dina nangu waaye bi Moussa waxee ba pare Firawna dafa woote mu ne waaw lu ngeen xam ci kii Firawna laaj na Moussa ne ko yow léegi loo bëgg mu ne ko farsil maana bani Israil libérer le peuple bi bàyyi leen di jaamu yàlla rek Haamaan ne ko gis nga kii yaa ko fi yaroon de benn xale la woon rek mu ne waa kii mooy kan eh kii du Moussa mu ne ko moom la mu ne ah Firawna léegi taxaw mu ne Haamaan taxawal ne rek mu ne waaw yow Firawna yow Moussa alam nu rabbika fiina walidan yow yàggu ma la woon nga nekk benn xale sama biir pale wala bista fiina min umrika sinin nga nekk fi ay at wa faalta faalataka allati faalta wa anta min alkafirin fàttewuñu de am na loo fi defoon defoon nga fi lu ne wéng loolu mooy la mooy reen nga fi nit te jamono ñoo ngi koy def wa anta minal kaafirin ci yéefiir yi nga bokkoon maanaam lan moo tax mu ne ko wa anta minal kaafirin est-ce que kaafirin bi ci kaafirul diine la bokk ah wa anta minal kaafirin mooy da ngaa këtt suñuy loi nga rëy nit nga daw nga bokk ci ñi weddi dëkk bi ñi weddi loi dëkk bi nga daw ah léegi nag lu xew maanaam ma defoon nga fi lu mel noonu waaye Moussa bàyyi ko mu sedd de Moussa qaala ne ko faaltuha izan wa ana min addalin jamono ñu koy def maa ngi ñu réer ñoo nekkandoon waaye jamono ji ma koy def maa ngi ñu réer ñoo nekkoon ci biir ñu réer laa nekkoon moo tax ma réeroon def ko wa faratu minkum lamma xiftukum ba ma leen ragalee tiit balaa ngeen may raw ma daw fa wahaba li rabbi hukman wa jaalani min almursalin wa tilka nicmatun tamunnuha alayya an abadta bani israil ba ma dawee tey maa ngi ni dellu si naa yàlla may na ma xam-xam yàlla def na ma yonent lële nga defoon nag te nga koy bàkkoo tey loolu day yow def nga lu ko gën a bon ndax yow yaa ngi jàpp banu Israël def leen ay jàpp man benn nit laa laa reyoon te yow ay milliards nit nga rey yemoo ci rey ay nit waaye nga toroxal ay nit yemoo ci nga def leen ay jàmm yow benn nga may limal ndeysaan allahu akbar moo tax gis nga chaque jour nit ku baax nit ñi duñu nangu nga def benn bu bon te ñoom dañuy def téeméer yu bon waaye boo demee ah ah yow doom moom ah te ñoom xot xoolal ñoom def nañ junni yow benn bis tarxiis nga rek ñu ne ah ibaadu dina def lii ah man de ibaadu yi jaaxal nañ ma ibaadu bi def lii ndeysaan amoon nañ benn xale moom mooy journaliste bi ngeen di dégg day tudd Pape Cheikh Silla bi mu nekkee xale ndeysaan gis sunna nekk xale bu ndaw ñu koy yar ko jàngal saa yi tardé añ ndeysaan gaa yi daal di añ bàyyi ko ku tardé reer kenn du ko yekkal su ñëwee rek ñu commencé di ko xas waaw am na benn magam bu jigéen ndeysaan bu ñëwee man balaa maa dee nga naan da ngay nekk ibaadu ibaadu yi nga xam ne ay bandi lañ ibaadu yi sa nangam nangam benn bis mu ne ko man sax barki démb fee gis naa benn ibaadu bu jigéen bu ñu biiral rek xale bi toog di jooy ndeysaan mënul àttal mbir yi mu toog di jooy mu ñëw ndeysaan kanam ngaa ngi lëndëm ko lan la mu ne dama sonn suñu kër mu egg see rek ñu commencé di wax lu ne lañ may wax mu ne xam nga lu ñu ma wax tey mu ne waaw mu ne dañoo biiral benn ibaadu ma ne waaw mais beneen yoon ne bu ñu la waxee waxal ñoom seen tarixa bi ñaata nit lañ ci biiral bala wax delloo rek waxu loolu yéen seen tarixa bi ñaata nit lañ ci biiral damay bañ tudd tarixa bi nag dégg ngeen xale bi dégg tarixa bi laay bañ a tudd xale bi ñëw rek ñu commencé ci ah ah ibaaru bu ñu biiral mu ne ko ñaata nangam lañ biiral mu ne ko gis nga moo ko waxati kat moo ko waxati waaw yaa ma ko ma fay keroog la dakk de wala gars yi nee nañ bu gaa yi jàngee wax jàng leen tontu bu jàngee wax jàng leen tontu nit ñi ñoo mënul nangu nga nekk ku baax nga tarxiis def benn bàkkaar seytaane mën la nga def dara gis nga boo ko defee am na ñoo xam ne bu munoon woo rajo yeeg télé yi dana leen woo ndax bëgg nga mu nga siiw te pourtant loolu ñu loolu ñu lay wax ñoom ci la ñu dëkk ñi ñu nekkal ci la ñu dëkk guddeeg bëccëg ñu ngi ci moo tax rek nga war a moytandiku nga moytandiku yàlla na yàlla sàmm yàlla na yàlla aar ba dars bi di ñëwaat ñu eggale ko incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu